jërëjëf Jacques Makhtar Gomis Anna Thiaw di nuyuwaat auditeur yu Rewmi FM 97.5 tey jii ci ganuk euh, bés bi ñu dalal euh, Cheikh Ndiaye nekk analyste en géopolitique Cheikh Ndiaye ñu ngi lay nuyu. voilà Cheikh Ndiaye euh, déjà ñu lay euh, laaj naka nga analyser situation bi nga xam ne actuellement moo am fële ca Gabon euh, gannaaw proclamation des résultats de l'élection présidentielle jox vainqueur président Ali Bongo après si le coup d'état bi daal di am foofule fi ñu toll nii nguur ga ñu nga ca ma nga ca loxol militaires yi ban jàngat nga def ci situation bi foofu donc situation bi am Gabon dafa situation boo xam ne bu tey xel la bu africain yëpp war a bàyyi xel la bu analyse yëpp war a waxtaanee la te Gabon dafa di dëkk boo xam ne depuis indépendance am ba tey régime ci présidentiel moo fi nekk ne Léon-Mba moo ko njëkk a waaye gannaaw moom euh, ku ñuy wax Albert Bongo di Omar Bongo ñu jiite ko pratiquement depuis bi ñuy génn àddina ay année deux mille neuf donc euh, ci loolu la ko doomam euh, succédé doomam bu ñu woowee Ali Bongo Ali Bongo moomu nag euh, bi mu toogee ci nguur gi ñu gis ni ay élection am na élection yoo xam ne génn nañ ci dañ ko gagné mais ñu gis ni à chaque fois moom mooy jàll ba ci ki mu mujj dajal di Jean Ping nga xam ne résultat yi sax dañu woon Jean Ping moo gagné mais Ali de forcing mais nag élection bi passé opposition gabonaise bi dañoo regroupé booloo tànn seen benn candidat candidat bi dem ak Omar Bongo élection résultat provisoire yi doon génn ci province yëpp ñu gis ni opposition bi moo jiitu bi ñu cumulé vote yi gis ni pratiquement opposition bi am na plus de 65 pour cent ci annonce yooyu nag bu ñu commencé génn ñu gis ni dañoo coupé internet def couvre-feu maanaam pratiquement dañoo bunkériser dëkk bi kenn mënatul génn kenn mënatul wax voie de communication yëpp ñu tëj ko ci loolee nag armée bi too ba xaali guddi ñu gis PDG parti démocratique gabonais def seen communiqué ñoom ñu def tamit communiqué officiel ni Ali Bongo remporté na élection yi maanaam dañoo dëpp carte gi parce que bu ñu waxatee yàlla rek xam nañ ni opposition bi ñoo jël kaw gàdd gi ñoo gagné ci loolu nag ci la coup d'état bi am parce que armée bi dafa jig ñi xëy na jël ay responsabilités waaw général bi def coup d'état bi nag moom moo yoroon garde présidentielle bi te ñëpp xam nañ ni garde présidentielle bi dafa di pratiquement branche bu am doole ci armée gabonaise plus de deux cent la te waa ji moom c' est un connaisseur wax dëgg yàlla c' était un fidèle à à Bongo Bongo donc nekkoon na sax attaché militaire fii ci Sénégal balaa Sénégal nekkoon na attaché militaire au niveau du du donc Maroc sax lañ ko formé donc dafa xam ne ku yàgg ànd ak Bongo yi la nekkoon seen fidèle lieutenant yàgg ànd ak ñoom ci vraiment euh, ni jiite jiitee Gabon. léegi nag waa ji bi coup donc militaire yi porté ko à la tête du pays. donc ñoo ngi xaar nag si quelques jours wala d'ici quelques heures déroulé bu muy teg par rapport à la transition mais tamit li ñu doon gën a xaar ci moom mooy ñu respecte la voie constitutionnelle maanaam xam nañ ci gagné élection yi donc na toog jël nguur gi jox ko kooku jox ko maanaam opposition bi nga xam ne ñoom ñoo gagné élection yi mais li ñu gis ba tey mooy ñoom nee nañ résultat yi leen nañ ko. Mm-hmm. maanaam dañoo na a jëm xëy na transition xamuñu nag ñaata weer la wala ñaata at la nar a ñu tëggaat yeneen élection yu bees. donc pour wane ni rek xëy na am na anguille sous roche am na xel ñaar ak xel tey bu mën a am ndax ñii ñoo ngi naan waa ji proche la boo xam ne proche famille Bongo bi la te xam nañ ni proche France la te ak ni mu mënti demee tamit nañ am njort bu rafet ci waa ji maanaam euh, il faut Gabon dépasser événement yi maanaam ñu jël pouvoir bi delloo ko au civil organiser wax s'il le faut ay élection yu libre démocratique parce que li mën a am ba am mooy élection yi jàll xam nañ ko ñëpp xam nañ kat moo gañe yi donc lii lii li nga xam ne moom la communauté internationale di xaar moom la Union africaine ak yeneen organisme yi nekk ci àdduna bi yëpp di xaar mooy ñu jël nguur gi jox ko ci gagné élection yi mais à notre plus grande surprise nag Mimi Ndiaye nee nañ annulé nañ élection yi annulé nañ résultat yi maanaam suspendre nañ résultat yi. Hmm. loolu nag ñoo ngi xaar bi si quelques heures wala quelques jours ñu jox ñu information yu doy par rapport ak loolu ak lu tax. ak lu tax dëgg la yàgg na jiite réew mi dëgg la élection yi ñëpp xam nañ ni ñu daan demee. mais yaakaaroon nañ ni ak résultats yi am jeu démocratique bi maanaam Ali Bongo dina ko respecté félicité vraiment opposition mais gisuñu loolu dañoo gis ni te doon jéem a maintenir boppam ci nguur gi te loolu loo ko indil coup d'état bi. Mm-hmm. cinquante six ans euh, famille Bongo nekk ci bopp réewu euh, Gabon ngeen gis ni kon euh, malgré cela démb Ali Bongo si résidence surveillée doon lancé benn appel boo xam ni c'est c'est lu gaaw la lu lu gàtt la mais mi ngi lancé appel à ses amis et au monde au monde entier ñu def beaucoup de bruit pour peut-être sa libération naka nga gisee sortie Ali Bongo ku ko xamoon ak démb sortie bi nga xam ni def na ko au niveau de sa incidence se surveille. donc so sorti Aly Bongo bi war nañu pousser ñu posé wu question bu bëri ndax ñëpp xam nañu ne Aly Bongo c'est quelqu'un de très tonitruand ku am caractère la te ki ñu gis démb mooy ki nga xam ne dafa feebaroon convalescent wéragul mais doon forcer présidence bi donc gannaaw AVC bu ko sonaloon daaneel ko mu maintenir au pouvoir mënoon na vraiment joxe nguur gi euh, par euh, deuxième personnalité de l'État bi mu jiite réew mi donc ñu organiser élection mais def ko dafa topp forcé te li ñu gën a jaaxal tamit ci appelam bi moom ay xaritam la woo ak ay soutien am. Mhm. te ñëpp xam nañ proche euh, proximité bi amoon diggante famille Bongo ak France te dégguñu ko mu woo demande intervention militaire France wala intervention militaire continent africain maanaam union africaine. Mhm. mais ñoo gis ni daal waxu xëy na ku tiit wala ku jaaxle la woote maanaam ay xarit la woo ak tamit na nit ñi def bruit. Mm. maanaam soutien woon loolu day wane ni kon la crise elle est profonde au Gabon day wane ni Gabon xëy na dëgër laay bi Ali Bongo amoon au sommet de l'État amatu ko maanaam ni mu téye woon nguur gi téye police gendarmerie administration bi lépp parti am téye ko moom mu téye ko ba de telle sorte que benn velléité bu am xëy na loolu daf ko perte looloo tax gis nañ Gabon yeneen tentative de coup d'état yi amoon yëpp dañ dafa échoué woon waaw ba ci militaire bi que woon def moo ngi woon mais nag bii mujj am nii dañoo gis ni Ali Bongo bu faible lañ gis boo xam ne amatul soutien population bi adhéré wuñu si si maanaam appel à l'aide boobu mu def au contraire dañoo gis population bi ànd ak militaires yi. Mhm. mais benn côté tam nañ tey xel si maanaam militaires yi parce que bu ñu waxantee dëgg rek élection yi Gabon opposition bi moo ko gagné. Mhm. donc population bi xëy na bi ak tamit ak changement bi ñu bëggoon rek l'essentiel na Ali dem xëy na moo leen poussé ba ñun ñëpp fekki militaire. mais il faut gabonais yi tamit amaat raison garder xam ni régime militaire du régime bu ñu souhaité sur les pays africains maanaam il faut ñu xam ni parti politique ñoo war a dem compétition électorale ki ci gagné maanaam civil yi gagné ñëw dellu si waat téye nguur gi. d'accord bu bëggee toujours en Afrique di favoriser les régimes militaires toujours day delloo ginnaaw suñu démocratie ak suñu liberté yi nga xam ne. c'est par des luttes acharnées lañ ko acquérir te coup d'état tamit dañoo bëri te wute. Mhm, mhm. ndax li xewoon ci Sahel bi bokkul ak li xew ci. Mhm. Burkina aussi loolu donc détail bëri nañ te moo tax nit ñi nañ tey nañ def attention par rapport ak euh, situation yi. Mhm. tey jii lan moo nar a nekk sooru Ali Bongo Ondimba euh, famille am ak ñi ko jege woon déjà parce que ñi ko jege woon la jont a annoncé l'arrestation euh, de certains proches d'Ali Bongo léegi. ñooñu lan moo nar a nekk seen soor ak Ali si boppam. cabinet présidentiel am bi presque ñu si nekk ñu si bëri jàpp nañ leen xëy na arrestation yi dina continuer mais li ñu mën a wax mooy ci sooru Ali Bongo mooy xam nañ ni junte bi maanaam régime militaire bi nangu pouvoir bi euh, di leen protéger ay droit wam respecter ay vraiment ay droit wam parce que comme ni ñu ko waxee ak ni mu mënti demee Ali Bongo président wu Gabon la woon mais cela mm. n'empêche que il faut ay suite judiciaire am par rapport ak ay situation politique yu xewoon Gabon par rapport ak ay cas de corruption yu métti yoo xam ne dafa amoon Gabon ak ay contrats yoo xam ne c'était mal vraiment paraphé au niveau du de ce pays là de ce fait am ay suivi ak ay ak ay réformes am par rapport au système politique gabonais au système euh, semi-présidentiel gabonais. Mm. maanaam ñu tëggaat xëy na constitution boo xam ne day wane ni képp kuy jiiteeti Gabon wala même teneen ci Afrique nangam ci mandat nga def gabonais yëpp wala africain yëpp d'accord ci. dëkk bu mun di doon ñu d'accord si mën a jàll ci leneen parce que bu ñu ko deful coup d'état yi day continuer di répété parce que famille Bongo. Mm. comme ni nga ko waxee plus de cinquante ans. Mm. de pouvoir pratiquement. Mm. un yi nga xam ne moo compose république bi yëpp. Mm-hmm. léegi de ce fait dina am ay velléité ba tey yoo xam ne moo nar a moo tax lii bu ñu gaawul gaaw tëggaat maanaam euh, régime bu bees constitution bu bees boo xam ne da leen di permettre. gabonais yëpp mën a identifié nga xam ne ci démocratie lay lalu ci ay liberté bu ñu la nar a nekkat spirale du coup d'état doon te loolu du Gabon mhm. euh, ñu gis ni souvent voilà Cheikh bu coup d'état amee euh, euh, réew ma dafay nekk ci instabilité est-ce que mën nañu njort ni Gabon dina dund loolu wala du ko dund non Gabon yaakaaruñu mu dund instabilité waaw yaakaaruñu mu dund instabilité ndax Gabon amul problème sécuritaire euh, intérieur boo xam ne maanaam c'est gangréné par des groupes terroristes ou des groupes rebelles yoo xam ne mën nañ déstabiliser pays bi à tout moment xëy classe politique bi ñàkk déggoo mën na am seen biir mais am na ay waxtaan yoo xam ne depuis démb ñoom ñu informé ñu am na ay waxtaan yu tàmbali di am diggante homme politique yi pour xam pour ban la ñuy taxawee face au régime actuel maanaam militaire nga xam ne ñoo nangu nguur parce que il faut ñu xam régime militaire bi ndax day ñëw def transition bu rapide day jéem a éterniser wu ci nguur bi parce que gis nañ ni en Afrique dëkk yu bëri saa yu coup d'état amee régime militaire toog fa. Mm. ñuy jéem a yàgg ci nguur bi demander ay transition cinq ans wala trois ans ainsi de suite alors que Gabon gis nañu dañoo génn ci ay élections yu démocratique loo xam ne benn problème amul sauf que problème bi ñu xawoon soulevé rek mooy président bu bañ a nangu defetam donc loolu war nañ ko mën a résoudre de telle sorte que benn débordement wala benn problème interne. du mhm. ñëpp xam nañu aussi euh, Gabon suuf si riche na trop ah est-ce que tamit euh, lu ni mel taxul am ñoo xam ni ñoo xeex ba régime mu Ali Bongo bi daanu amul yeneen réew yoo xam ne ñoo ko xeex tey jii ba coup d'état bi am fa. waaw am na soupçon yu jot am parce que ñi ñee ngi naan. Mhm. le général Ndiéma donc il est plutôt de la France. Mhm. ainsi de suite mais ak ni mu mënti demee général Nguema mu proche France ak États-Unis c' est au Gabon da Gabonais de décider. Mhm. bis bu Gabonais yi gisee ni kii intérêt bi muy défendre du intérêt Gabon. parce que xam nañ ni Gabon dëkk gën a riche ci Afrique la bokk ci en de ressources. Mhm. dëgg la population am eggul ci yenn nombre yi. Mhm. Eh, bariwul tamit plus de deux millions rek. waaw waaw presque deux millions d' mais xam nañ ni Gabon dëkk la boo xam ne suñu solam dafa riche. donc répartition des richesses war na ko mën a am nit war nañ mën a gis seen bokk alors qu'on sait la population une bonne partie de la population gabonaise vit sous la pauvreté. Mhm. donc loolu noonu bu ñu demee ba gis ne régime bii ñu toog défendre les intérêts Gabon dugalul askan wi donc c'est au Gabonais d'en tirer les leçons de prendre les responsabilités moo tax si njëlbeen ma ni la classe politique gabonaise bi opposition bi ñoo ñu waxtaan ñoo ñu jéem a organiser ku xam ban posture la régime bi di adopté trois postures yi défendre ay intérêts Gabon renégocier contrat yi. Mhm. Euh, attirer investisseurs yi ci posture boobu dañuy jéem a maintenir la ñuy jéem a taxaw wala dañuy taxaw ci posture boo xam ne dañuy nekk bras droit wu benn puissance étrangère représenté ko Afrique wala défendre seen ay intérêt maanaam ci posture boobu la ñaari posture yooyu daal moo mën a am bu amul rek gabonais yi ñoom xam ne nan la ñuy jëlee seen ay responsabilité parce que ils l'ont fait suwaali hmm. boobu gis nañ élection yi ñëw ñu sanctionné ko malgré sàcc bi mu doon jéem a def mais jàllul moo tax lii dafa bëgg a attirer attention bu chef dañu nekk vingt unième siècle boo xam ne c'est l'éveil des consciences maanaam nit ñi dañu yeewu am ñi daa may enjeux internationaux yoo xam ne moo nekk di déroulé wu sur le continent africain te il est temps que l'Afrique de cette pauvreté on nous dit que le vingt unième siècle siècle africain bon man j'adhère adhéré wu ci loolu gëwuma ni c'est le africain yooyu yëpp c'est des yoo xam ne dañu ko bëgg porter bëgguñu ko inculquer